tey nga gis loo mësta gis loo gis. fermé attaqué. observation déclenchée jël na tànk bi bañ na. Balla ngi dóor. Balla jël na ko daan na ko ko. temps de réflexion li ma jaaxal mooy. dafa am lu ma jaaxal. nu ko daanee ba pare après de waraat ci kawam. waa Lamine temps de réflexion la ko mayu. bëgg maamam Fodé de mu la mu sant doon daan day toog sa kaw. ne kaa xaaral photo. ataa photo.